الحمد لله الذي أغناني وأعزني بتلاوة القرآن ثم الصلاة على النبي المصطفى خير البرايا من بني عدنان بقي جاكارو نيون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغن كو خامي ات مو نيك بوñ tolloo ci weer wi di weeru tam xarit man ak sama xarit sama doomu ndey al ustaaz Alioune Sall dañ ciy def waxtaan ci bis bi nga xam ne mooy bisu ashura bi te mooy bu ñu reeree ba ci suba si ren jiitam bu soobee yàlla dañ koy defaat waaye nag duñ ko mën a defee nañ ko daan defee ndax xew-xew bi am ci dëkk bi nga xam ne day bañ dajaloo moo tax incha allahu danañ jëfandikoo jumtukaayu jamono ngir def waxtaan wi ci façon boo xam ne bu soobee yàlla képp ku mu yitteel da ko mën a seetaan kon incha allah ñu ngi leen di woo ci bis boobu di leen wax ne nañ ko waajal bu soobee yàlla buñ ci eggee da ngeen mën a am ci seen téléphone yi wala seen tele yi waxtaan woowu nga xam ne man ak imam Alioune Sall ñoo koy seq bu soobee yàlla te di ko waxee ci lépp loo xam ne yitteel na réew mi ci tolluwaay bi mu toll nii tembe yàlla nañ ci egg ak jàmm yàlla na at mi nekk atum naataange atum xéwal atum barke atum wér-gi-yaram yàlla na fi yàlla jël mbas mi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu alhamdulillahi alladi agnaani wa a'azzani bi tilawati alqur'ani thumma as-salatu ala an-nabiyyi al-mustafa khayri al-baraya min bani adnani